1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la ville de Dubaï va abriter l'exposition universelle Dubaï 2020. Euh, docteur Marie Diop directeur général u ASEPEX agence sénégalaise promotion des exportations mm -hmm. nekk commissaire général expo universelle euh, ca euh, Dubaï événement bu mag la mooy événement bi nga xam ne ci mbirum koom-koom moom moo ëpp solo ci àdduna mhm. Euh, di euh, daw ci diiru juróom-benni weer muy euh, ñu tàmbali ko premier octobre deux mille vingt et un cappaandaw ba ñu war ko tamit def fële na la ci Dubaï ci 31 mars deux mille vingt deux muy juróom-benn weer. ci expo boobu boobu sax la ñu ñëwaat. dañu gis ne tàmbali na fële ca Dubaï yow nan nga gisee événement boobu noonu. gis naa ne événement la boo xam ne dina indi koom-koom bëri bëri ci biir réew mi te ñu bëri tey jii nii ñu ngi investir si Sénégal ndax loolu dañu tamit gën a fonk Sénégal ci bitim réew ci anam yëpp nag ci anam yëpp tey jii nii euh, li ñu gagné Coupe d'Afrique sax dina tax ba ñun tamit loolu dinañ gën a wane sport Sénégal gis nga ci pavillon expo universelle pavillon bi ñuy am pavillon Sénégal ba laataak sax ñuy dem ay Coupe d'Afrique ñun foofu affiché woon nañ fii ay euh, ay photo yoo xam ne équipe nationale la ak Sadio Mané ba nit ñi di xool ba comme comprendre Sénégal fan la nekk et cetera léegi nag <laughs> dañu gën a woon war a mën a wane Sénégal parce que jël nañ Coupe d'Afrique mhm. ak yeneen domaine ak yeneen vraiment expo universelle c'est quelque chose d'exceptionnel mhm. euh, te jeexagul euh, ñu ngi xaar nag au mois de mars incha allah mhm. xool deux cent pays deux cent pays dinañ def ay awards xool ban pays moo gën a bénéficier wu ci expo universelle bi te bëgg nañ Sénégal bokk ci ñetti réew yi nga xam ne ñoom ñoo gën a bénéficié wu ci expo universelle boobu. Mm-hmm. buñ ci yeggee nag dinañ xool naka lay mm-hmm. mujjee.